amna jigen bu décédé ay nit wax ni xamna naa mën na am ngor gi la mais quand même ko xol Macky Sall xam ni kooku du criminel ko xol Macky Sall ni mu soppee doomu aadama xalaatul muk def la bon doomu aadama jamais la je suis toujours avec lui xamna ci dal président de la république du tek tor doomu aadama kuy jara jàppale la président Tanor wax na ko sànq ñeneen intervenants yi wax nañu ko loolu aussi je pense que war nañu ko gànnaayoo ci suñu combat bi am na ko sànq des mots que j'ai retourné mu ni nañu fexe ba wane réalisation président mais bu ñu bu ñu fàtte perspective bi li ñuy def suba bu ñu ko fàtte li mu nar 2035 Assane Baye wax na ko mais félicitations Assane wax na ko c'est très bien et je pense que loolu lu am solo donc di leen wax ni tey fiche yaa ngi c'est un G le président vous dira combien c'est li nga vous li ñuy wax ni ñu koy waxee noonu la ñu koy parce que nous sommes de bons soldats dañoo gëm ni vous kuy dem ci xare il faut nga am ay bons soldats damaa nangu bokk ci bons soldats quand le président me dit que c'est à droite c'est à droite. nee naa leen bu ma waxoon tey Augustin je prends tel je le mets coordonnateur départemental ñun ñëpp dama leen di oree ñu maa koy jëkk a wax maa koy jëkk a liggéey pour ngeen am pour mu am li mu bëgg pour mu am li mu bëgg moi je préfère toujours être derrière ñi ma xam xam nañu ko wax naa leen bi ñu may fal pour que je le maa ngi taal sama oto bi ñibbi Kaolack sama cabinet nekku moon Dakar dama taal sama oto nekk ak Abdou Mbow

taal sama oto di ñibbi Kaolack c'est sous la route qu'on m'a appelé président bi président du secrétaire u Momo. ni ma c'est bien docteur kii ma ne ko ni ma on va t'appeler ma xool Abdou Mbaye oote dama yaakaaroon sax bi Abdou Mbaye woote xam nga sama gars yi ñoo kaf rek nangam nangam mu ni ma le président de la république vous confie le ministère des forces armées ma ni ah monsieur le premier ministre amul waxtaan amul dal mu ne non loolu la ma wax ko wax je suis à sa disposition et à celle de mon pays. la ma waxon bobo bobo ki la taxaw ba léegi dara du ci donc ensemble ensemble nous vaincrons pas pour nous c'est pour le Sénégal pour la jeunesse pour le futur de notre pays mangi len di gërëm di